mbokk jullit yi yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan seeni seen seen Senclic ñu ngi dellu siwaat ci seen émission bu ñu tuddee majalisul ulama sualun wa jawaab te mooy jetaayu boroom xam-xam yi ci laaj ak tontu tey nag ñu am mbégte lool fa tabarakallahu seet si benn boroom xam-xam boo xam ne mu ngi dëkk fii ci karce bi ci xaar yàlla ci Grand Yoff ñu di ko wax imaam cheikh al imaam Muniru Sarr moom lañu seet si tey bugg a seq ak moom benn jataay bu dellu ci laaj ak tontu li tax ñu ñëw fi nag mooy xam gi ñu xam ne li ñu soxla ci ay laaj bu ñu ko ko laajee dinañ ci am satisfaction looloo tax ñu ñëw fi tey kon dañ koy jox rek mu nuyoo bu ko defee rek mu présenté wu ñu commencé ak moom jataay bi kon oustaz lakkal kalima alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa taabicihim bi ixsaanin ila yawmi diin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Haaj eh, Ousmane ñu ngi lay nuyu di la tatagal di kontaan bu baax it ci ziar bi nga xamante ne ziar si ngeen ma ko donc lu néew doole lu gàtt xam-xam bu ñàkk solo eh, sama tour comme ni nga ko waxee Mouhamed Mounir laa tudd Sarr fii ci quartier bi ñuy wax Léona Grand Yoff eh, ñu ngi leen di dalal bu baax eh, tey ñaan yàlla it émission bi ni ngeen ko tuddee suwaal wal jawaab yàlla nañu yàlla boole dimbali bi li ngeen ñuy laaj yàlla def tawfiq ba ñu mën koo tontu doon loo xamante suñuy njëriñ lay doon ak mboolem jullit. ci laaj yeeg tontu yi ndax kenn ku nekk li jaadu ci moom bala muy wax mu présenté wu donte présenté wu nga waaye bëggu nañu xam buñ ko doon wax mooy jaar-jaar bi nga am ci wàllu gëstu walla wàllu njàng ak boo fi ñu toll fii fan nga ci jaar loolu it bëggoon nañ koo xam bala ñuy commencé laaj yi waaw alhamdulilah suñu jaar-jaar ci côté daara ji Eh, ñun suñu cosaan mu ngi mu nga fële dëkk bu ñuy wax Tataguine fa la ñu juddoo suñu waajur moo ñu njëkk a jàngal alquran eh, yàlla dogal ñu def ak moom ay at yu néew rek mu génn àddina dal ñuy boole nag suñu waajur woo xamante ne eh, góor gi Cheikh Moussa Diouf bu Malicounda mu ñu ñaari at ci école la fa ubbi woon yore fa ñaari at bi fa génnee nag. ci la ñu toog yëg ni dañu war a jàngi parce que suñu waajur dafa dëkkaloon suñu nopp ne sédd nañ leen diine ji dem leen jàng diine ji yow moom Mounir man la ko mun ak ñëpp laa yéene diine ji yow moom ci sama njaboot yow laa sédd diine ji loo jàng lu ne lu dul diine sawaru duma bégloo boo jàngee diine nag yàlla barkeel taxoon bi mu génnee àddina ñu toog ñaari at ñetti at bi ci ñeenteelu at ba ci la ñu toog na xam ne lañu war a dem daara ñu jóge fa dem suñu góor gu baax gu ñuy wax Ousmane Niang góor gi Ousmane Niang bu mag la woon bu nekk yalaax ñu dëkk yalaax cefes ñëpp xam nañu ko parce que même ilimaan ya suñu daara ji ilimaan yi dañ daan bàyyi seen seen jàkka yeeg seen jumaa yi ñëw di jàng si ci moom fu noonu yëpp la doon jàngale moom góor gu baax gu tedd googu fa la ñu jàng li ñu war a jàng tabaarakallaahu ci funoon yi nga xamante ne yi ci gën a siiw ci ñuy jàng ci biir réew mi fa lañ ko jàngee ànd ak loolu nag bi loolu amee bi bi ñu jàngee ci daara ji bi pare def nañu euh, ci école yi yi ci ëpp lañ ci def ay candidat libre xam nga daara ji comme que matière yëpp la jàngale def nañ ci ay candidat libre am ci diplôme yi ñuy laaj ci réew mi euh, génnuñu réew mi nag waaye ci biir réew mi la ñu jàngee diplôme bii fi nit ñi ut ci réew mi it ci mu ngi yemoon ci bac fa la ñu yemoon euh, waaye li daara yi di jàngale daal jàng ñu ko. lii mooy wane ni ki ñu seet si li ñu soxla ci moom danañu ko am incha allahu kon bu ko defee ñu commencé rek ñu ngi jëm ci wàllu koor weeru koor ku ko wax war nañu xam lan mooy koor war nañu xamit kan moo war a woor war nañu xamit kañ lañuy ñuy commencé koor waaye war nañu xamit lan mooy li nga xam ni dagan na ci nit ki bu ko dalee mu bañ a woor waaye war nañu xamit li nga xam ne mooy am ci wàllu weer wi li ci aju bu ñu ko temps bi may yooyu lañ bugg a laaj oustaz kon laaj bu njëkk bi mooy nga defal ñu taarif ci as-sawm luxatan wa istilaahan maanaam nga wax ñu lan mooy koor ci wàllu langue linguistiquement lu muy tekki waaye ci sharia it lan lay tekki. buñ ko waxee ci luxatan as-sawm wala al imsaak koor buñ ko waxee ci baatu mu baatu sawm bi li muy firi. mooy téye sa bopp eh, nga xamante ne yëngatu yu bari dootoo ko def da ngay gis sax ci eh, alquran Maryam wax na ko ci eh, ba ko gaañe di laaj li nga àndaloon doom ji mu indi woon ci yontu yàlla def yàlla daf ko ne bu ñu la laajee da wax na wax leen ne indi nazartu rahmaani sawman falan ukallima al yawma insiyan tey jii dama nizar woor lu ma wax kenn koor foofa la muy signifier mooy bañ a wax toog rek ku nangoo wax kenn kon luxatan li muy firi mooy téye sa bopp ci activité yeeg sa làmmiñ dootoo def dara istilaahan nag bu dee ci côté diine ji li muy firi mooy al ibsaak anil muftaraat ma iqtiraani niya bihi min tuluuci alfajri ila gurubi shams sawm ci koor mooy nga téye sa bopp ci lépp loo xam ne dina yàq koor waaye ànd ak loolu nag boo koy def dafay ànd ak yéene boo xëyee téye sa bopp ba ngoon jot lekkoo naanoo lépp lu yàq koor defoo ko te àndul woon ak yéene amul njëriñ waaye dafay ànd ak ko yéene ne dama bëgg a jaamu yàlla ngir yàlla duma lekk du ma naan bàyyi naa lépp luy yàq koor kañ lay commencé wala wóor ne fajar fenk na ci lay commencé ba ba jant bi di so koor ci charia loolu lay signifié téye sa bopp ci lépp luy yàq koor bu fajar jotee ba ba jant bi di so ànd ak yéene jaamu yàlla. ngeen ko déggee ci li imaam wax kon téye sa bopp ci làng rek li muy tekki mooy koor loolu dina ko tekki ñaareel bi dina wone na ne charia bu dee delloo ci charia li muy tekki mooy nga téye sa bopp. ci lépp loo xam ne moo mën a yàq koor ci lekk ak naan ak ànd ak sa soxna li ko dalee ci fajar di xare ba bi jant bi so kon loolu la imam wax ne mooy koor ànd ak yéene bi nga am ci war a woor koor gi ñaareelu laaj bi oustaz mooy mata yajibu as-sawmu ala al mukallafi maanaam mukallaf kañ la war a woor kañ la war a woor euh, mu ngi war a woor rek gannaaw bi mu doonee jullit parce que bu ñu kan moo war a woor rek xanaa mooy war a jiitu sax jullit bi nga xamante ni wër na ko ne jullit la ku dul jullit koor waru la waaye bi mu doonee jullit bi pare nag eh, kañ la war a woor mooy heure bu ko wóoree ne weeru koor bi feeñ na bu ko weeru koor bi feeñ na rek koor jot na amatul xaar kee wala xaar kee wala ndigal walla lee déedéet wóor na ko ne weer bi feeñ na wóor na ko laa wax bu ko wóoree ne weer bi feeñ na rek eh, booba koor da koy war kañ la koy wóor nag pour mu wóor ko ñaari nattukaay yi la lislaam indi benn bi mooy wala boog mën nañu dem sax ba ci ñett eh, bi ci gën a wóor mooy moom ci boppam mu gisal boppam weer wi eh, laysal xabar kal iyaan siggi nga seentu weer wi sa bët na ci teg mu wóor la ni weer wi la bu ko kenn gisatul it yow weer wi moom gis nga ko waaw jullit nga gëm nga yàlla danga war a woor bu la jëlee nag yow ñaar yi door a ñëw benn bi mooy ñaari nit ñu màndu buñ ko gisee wóolem yi ñaari nit ñu màndu lañu nee na gis nañu weer bi da nga war a woor walla boog mbooloo moo xamante ne bari nañu doonte sax ma maandute bi mën na a ñàkk a bari dañu jàpp ne mboolool moom fukki nit fukki nit ak juróom bu ñu ne gis nañu weer wi te bokkuñu fa ñu fa ñu fa ñu jóge xamaane ne amaana ñëpp dañuy jàpp ne lii lu wóor la parce que gisantewuñu wuñu déggante wuñu mënuñu noo dëppoo ci ay caaxaan daal kon mbooloo moo xamante ne mu xaw a sakkan la bu ñu gisee weer wi koor gi dafay sax ñaar ñu maalu buñ ko gisee koor ga dafay sax dafa war a woor moom ci boppam bu ko gisalee boppam mu wóor ko ne weer waa ngi nii dafa war a woor. defe bu ngeen dégloo imaam li mu wax ci kañ la nit ki war a woor jox na la ay indication yu tax ñu xam ni nii lañu war a diw ak diw ak heure bi la ñu war a woor wax na yitamit li nga xam ne mooy sax dugg daanaka dugg na ci ñaareelu laaj bi wala ñetteel bi te mooy moment bi nga xam ne ci lañ war a gis weer wi maanaam seen weer wi e, ndax boo demee ci boroom xam-xam yi am nañu ne weer wi bu fu mu mën a feeñee rek dañ ñëpp a war a woor waaye am nañu waxit leneen ñu bëggoon nag diggante boobu li ñuy wax ci wàllu ñi jàng diine mooy li ñu tudd ixtilaaful mataali maanaam wuute bi ci am ak boroom xam-xam yi mooy madaahibul arbaa ñoom lan la ñu wax ci mataali yooyu est-ce que ñoom ñëpp ñoo ci d'accord te ixtilaaful mataali wala am na ñu ci ànd wala am na ñu ci àndul loolu yi tamit bëggoon nañ ci nga indi ñu ci ay tegtal ixtilaaful mataali weer wi kan nañ ko war a séenu ak euh, gisin bi buñ ko gisee ba pare lan la ci lislaam wax biñ ko war a euh, séenu mu ñu ngi ko war a séenu bu weeru baraxlu bi amee ñaar fukk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent jours fu mu amee jullit ñëpp war nañu jóg séentu te mooy Shaabaan bi war nañ séentu ci xam ne weeru koor mu ngi jege si buñ ko ca gisee alhamdulilah buñ ko gisul ñu matal fanweer te moom mooy baraxlu bi Chaabaan bi bu matee nag bu boobaa kenn dootul siinu ñëpp dañuy xam ne rek suba koor la parce que weer du romb fanweer premier jour boobu nag bu ñu koy séenu te mooy vingt neuf jour bi ci Chaabaan bi eh, foofu gis-gis bi comme ni nga ko waxee ndax jullit ñi ci lañ lañu d'accord eh, ndax gox yi ndax buñ ko gisee ci Sénégal ñëpp war nañu war àddina bi yëpp walla boog gox bu ne ak goxam réew mu ne ak goxam foofu boroom xam-xam yi dañ cee werante werante biñ ci werante it yëpp dafay delluwaat rek ci alquran ak sunnatu nabawi sallallahu alayhi wa kuréel bu njëkk bi dañu wax ni même mazahib yi dañ cee werante waaye ci biir mazahib yi nag wax yi may wax mazhab yi yëpp boo ci dem di nga fekk ne ñii dañu xaajoo wax lii ñii dinañ xaajoo wax li teewul nag dina ci am wax yoo xamante ne ñoo ci gën a fës ma bëgg a wax mooy ñaar dañu xaajale ko ñaar ñii dañu ni weer wi daal benn weer la fu mu feeñee ñëpp war a woor lu tax benn weer la ci benn asamaan si la te décalage bi am ci diggante àddina bi presque rek pour nga gis ñu rawante ñaari fan dafay jafe ay heure rek a rawante dañ koy gis fii tey suba balaa ay quelques minutes ay quelques heures guddi dugg fële donte ñoom ñu ngi ci bëccëg quelque temps guddi dugg ñu ne kon benn weer la boo xamante ni benn yoon lay feeñ bu xasee feeñ feeñ na ñi ko gis gis nañu ko ñi ko gisul ñoo ko gisul waaye feeñ na kon ak nu mu mën a demee kon jullit ñi dañu war a woor ñeneen ñi ne déedéet gox bu ne kay ak seen seen seen dëkk bu ne ak seen gox bu ne dal ak ak seen séentu ak seen feeñuwaay al matla seen gox bu ne ak seen feeñu feeñuwaay senegaal am na matla am Arabie Saoudi am na matla am Europe gox bu ne ak seen matla gox bu ne nag dangay xaar séentu sa weer boo ko gisee nga door a woor waaye duwul Arabie Saoudi dañ koy gis rek Sénégal woor déedéet parce que soree nañu am na ñu wax loolu. ñaar ñi wax loolu ñëpp it boo leen seetee dafay delluwaat rek euh, ci ci alquran ak euh, sunna benn aaya presque la ñu ñoom ñëpp wala boo ko li ci ëpp ci ñoom aman shahida minkumul shahra falyasumhu ñuy alquran ni képp koo xamante ni yaa ngi dund doon jullit shahida boobu borom xam ne dañu ne bu dee isa ru'iyal hilaal bu wóoree ne weer wi moom gis nañu ko ci xaaj bu njëkk bi ñu ngi sukkandiku foofu wuuri ni weer wi gis nañu ko kor war na ñooñu ñi wax loolu dañu ni wa alquran bi waxul ni bu ko gox bi gisee ak bu ko gox bee gisee man shahida ko mu shahra képp ku weer bi fekk ngay dund mu feeñ mu wóor na ne feeñ na rek da nga war a woor ñooñu foofu lañ foofu la wu ndax na aaya bi séparé gox yi eh, sang bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadis yi moom it ne suumu li ru'yati oftaloo li ru'yati woor leen bu ngeen gisee weer wi dog leen bu ngeen gisaatee weer wi te mooy weeru korite bi bu feeñee mu ne xitaab boobu xitaabun am li jamil muslimin kàddu la wax bi ko yonent bi di wax jullit ñëpp la waxal waxul ne gox bi wala gox bi bu ngeen ko gisee woor leen bu ngeen ko gisaatee koor jeex na korite korite leen ñoom ñu ne ñi première kuréel bi ñu ne foofu la ñu teg seen tànk ba jàpp ne koon weer wi ci boppam fu mu feeñe rek àddina bi ñëpp ko war a woor loolu mooy seen tegtal ñaareel yi ñi nga xamante ne ñoo wax ne gox bu ne ak seen séentu ñoom ñu ngi sukkandikoo ci hadis boo xam ne Ibnu Abbas moo ko génnee nga xamante ne ci jamono Ibnu Abbas eh, yonent bi sallallahu alayhi dafa dem tuuti sidna Aboubacar dem sidna Omar dem sidna Ousmane dem radiyallahu taala anhum ajmain sidna Ali ñëw toog diggante mag Muawiya am tuuti problème bi Muawiya nekk Cham mu nekkee Cham Ali quelque temps ñu rey ko Muawiya yore nguur gi Abdullah ibn Abbas am na benn eh, mbokk moo xamante ne yónni woon nañ ko mu dem Cham Eh, ca doxi ay soxlaam waaye dafa dem bés boobu mu ngi tombe woon ak alxames ci guddi bër set di aljuma tombeek ñuy seeni weer wa foofa ñu seeni ko gis ko jamonoy gouverneur ba nekkoon foofu mu waawee la ñoom ci ajjuma ja ñu xëy woor soxna sa dox ay yitteem ba matal del siwaat Medinatu Munawwar fekk Abdullah ibnu Abbas Eh, ne ko ah yéen ndax da ngeen woor mu ne ko ah déedéet gisuñu weer bi mu ne ko ah chambre bi la ma jógee ci Muawiya gis nañu weer bi mu ne ko ndax yow bokk nga ci ñi ko gis mu ne ko gis bokk naa ci ñi ma ko gis gis nga ko yow mu ne ko gis naa ko kon da ngeen woor mu ne ko dañoo xëy woor Muawiya dafa xëy woor mu ne ko waaw saxaaba yi ñëpp àndandoo ne Abdullah ibn Abbas nu ñuy def xanaa dañuy woor mu ne ah déedéet nag ñun suñu seenu bopp la am ndax nii lañu ñu yonent bi yare woon ci lii la ñu dundoon ak moom bi mu génne àddina Abdullah ibn Abbas nag boo gisee ñu ñu bari basé wu ci moom moom la ñu tudd ne woon mooy xibrul umma mooy fuure boroom xeet bi xeet wi ci boppam keroog bi mu juddoo incha allah Muhammad sallallahu alayhi wa moo ko téye Abbas indi ko jox ko ko mu leewu ko moo ko tudd ñaanal ko yàlla pour mu doon koo xamante boroom xam-xam la xeet wi yëpp bokk mooy fuure xeet wi boo seetee it ñu bari ci ay saxaaba yu àndoon ak moom àndoon nañ ci gis-gis bi. Eh, boo seetee suñu mazhab bi imaam Malik eh, ñu ci ëpp ñëpp rawatina garbul ifriqi yi ñu ci ëpp ñëpp ci wax jooju lañu sukkandikoo xam mag ñi ci loolu lañ doon dund gox bu ne ak seen séentu kon ñaar yi mooy li nga xamante ne mooy xilaaf bi nga xamante ne bay na xawlay ni diggante ñaari wax yi xawlul awal wa xawlul xawlu saadi ñaareelu wax bi ak première wax yi lii mooy seen différence seen adilla yi it noonu la demee